peut-être euh, euh, les libéraux ñi nga xam ne ñu ngi mbuboo euh, libéralisme muy bu africain bi bu occidental bi ñu ngi ci seen sommet ñu ngi waxtaan sur les question d'actualité internationale bon defe naa loolu lu baax la wante euh, defe naa Macky Sall wax na peut-être du kàddu gi mooy que il faut rompre avec ce système là loolu day jaaxal nit ñi parce que Macky Sall lu koy lu ñu koy reprocher mooy que il n'a pas voulu rompre avec le système au Sénégal ouais. mais à l'échelle de l'Afrique il demande aux Africains de rompre avec ce système là donc il y a <laughs> donc il faut que nit ñi gën a gëstu mhm. bon euh, démystifier les idéologies libérales socialistes mais ñu xool dëgg-dëgg par exemple euh, génn nañu concept euh, law na fii ci Sénégal populisme mais européens tubaab bi nu muy gisee populisme ak ñun nu ñuy gisee populisme du benn réalité yi dafa wute lool lool lool mhm. donc waruñu ñun répéter comme Amadou Aly Dieng disait ñu bañ a nekk des perroquets mhm. c'est c'est c'est pas ça notre rôle c'est pas de répéter ñoom bu ñu waxee populisme bu ñu waxee terrorisme bu ñu waxee ñun ñu topp ci rek ils ont un problème c'est cest di que ñun dañuy fàtte ne que les Européens sont des chrétiens nous on est des donc pour ñoom c'est l'islam qui est porteur du projet terroriste mhm. ñoom c'est ils ont une lecture très étroite xamuñu l'islam xamuñu Afrique xamuñu aussi euh, pourquoi ces gens lu lu leen intéressé mooy que yow euh, musulman nga tu amènes la terreur ñun waruñ ñu chef d'État africain yi def naa bon Macky Sall est bien placé pour comprendre et la terreur mi <laughs> ñu koy interpréter c'est multiforme sol abaya téeréer la bokk voile intégral ci téeréer la bokk. il faut qu'on fasse un effort de réflexion sur nous-mêmes. te bañ di calquer lu ñu jox rek ñu consommer. non mais attends depuis 60 on est pays sous-développé pays développé. pays tiers monde pays tiers lu ñu wax on répète. donc il y a un problème euh, de déconstruction il faut que les Africains pourquoi on ne cherche pas notre voie à nous. yàlla xam na ne suñu xoolee suñu histoire euh, politique mais on a une fois mais c'est que tooguñu waxtaanuñu jéemuñu sax xool bon ban ban projet de société la ñu war a je crois que ça bon je bien aimé aussi que mu rendre hommage à Wade parce que au moins lu ñu mënti wax ci Ablaye Wade il a réfléchi pour diir que bon man seen libéralisme bi ngeen di wax ni dama ciy yokk libéralisme social gis nga libéral social bi mu ci yokk c'est pour leur dire que yéen bon man pauvreté bu nekk ci Afrique nekkul foon seen seen seen dëkk. Mhm. donc libéralisme tout court les inégalités l'injustice bu nekk ci Afrique nekkul ci Europe. parce que Europe moo ñu ëpp développement économique. Mhm. donc libéralisme bu fa nekk France mais France sax dafa wuute ak Angleterre. bien sûr Angleterre wuute ak Allemagne. Mhm. pourquoi vous voulez que l'Africain applique le libéralisme français wala anglais wala. ñoom lay jariñ de ñoom kese lay jariñ libéralisme boobu donc lui au moins il a réfléchi pour dire que damay yokk libéralisme social sur le plan idéologique c'est bien mais des na des na le problème c'est pas de rajouter une dimension sociale le problème c'est d'avoir ton projet de société.